dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne bi dal di jox nay àddu ci li nga xam ni. moo di information bi ministère de l'intérieur daal di génnee ñeel wàllum list électorale yi révision biñ ci war a def ngir waajal élection présidentielle yu atum 2024. mu ne nag dara gënul rëy loolu ci scandale ndax bésub tey jii waroon naa fekk ñu dal di ubbi li nga xam ne moo di révision list électorale yi ba jeunes yi tàmbali di daal di bindu ci yooyu li liste li nga xam ni moom moo di xibaar bi circulé nekk ab information bu ñu daal di publier li muy wane mooy que ni ñoom actuellement lenn la ñuy def mooy que ne dinañ publier décret bi nga xam ni moom mooy daal di jël boobu lépp décision daal di koy acté lu ne mel nag Clédor Sène mu ne mën naa jur ay jafe-jafe mi ndax bëri na ñoo xam ne dañoo war a bindu ci yooyu li liste électorale ndaw ñi ñu ci bëri pare nañ pour daal di bindu ngir mën dem ci jongante yi atum 2024 yi tànn ki leen doy ngir mu nekk seen président de la république du Sénégal. nee nañ nag dinañ tijji liste électorale yi ñu ngi leen di xaar pour xam kañ lay doon waaye ñun li nga xam ni moom lañ bëgg ndaw ñëpp daal di ciy bàyyi xel mooy que ne bés buñ ko tijjee képp ku amul carte électeur na nga dem dal di bindu ji gis nga soo nekkee ci am réew bëgg fee am baat benn kàddu nga am mooy sa carte électeur te bés bi nga xam ne moom ngay wane sa bopp di wax ki nga doon mooy jour bi ngay dugg ci sa bureau de dem jubal tànn bulletin bi la doy def ko ci enveloppe dal di koy dugal ci urne ba laal ci encre indélébile bi génn sa xol dal di sedd dal di am satisfaction ci li nga xam ne moo di sa devoir nous sommes tous des nañu def li nga xam ni moom moo ñu war gars nag ñu ngi def lu leen neex dañ leen ci bàyyi ñu nekk ci waaye ak lu mënti xew li nga xam ni moom moo di révision bu liste électorale yi moom mënuñu ci dara faw ñu daal di koy defal bu tijjee nag képp kuy ab jeune te amoo carte électeur na nga dem bindu ci képp itam koo xam ni sa carte réer na da nga ci jublu gaawantu ci def ci sa kéemtalaay kattan ba nga amaat ko balaa ñuy tëjaat li nga xam ni moo jëm ci lu ni mel lépp loo xam ne rek effort la kenn ku ci nekk ci ñun di sénégalais war na koo daal di jëfee waxee ko ñu mën a am ndam ci 2024 sénégalais yëpp li ñu bëgg mooy changement sénégalais yëpp li ñu bëgg mooy daal di génn ci jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñu nekk bis bu yàlla sàkk pour sa faire nag dafa am loo xam ne mënut a ñàkk mooy ñu inscrire ci liste électorale yi bindu ci ba mu leer nañ waaye itam jour vote bi ñu dem def l'acte citoyen daal di teew ci bureau de vote yi voter le candidat le mieux placé pour faire avancer ce pays qui souffre d'un régime qui ne sa soucie de rien d'autre que de ses ci mënti am nag faw ñu daal di ciy jóg taxaw ci ndax ñun sénégalais ñun kese ñoo mën a changer suñu réew jafe-jafe yi muy dund waaye buñ ko deful nag ëllëg réccu dina am te dina fekk mu wees ëllëg dinañ toll foo xam ni dinañ bëgg daal di faj jafe-jafe yi nekk ci suñu am réew fekk c'est trop tard bu ko taxaw rek naan wàllum politique sama yoon nekku ci li leen bàyyi ñu def lu leen neex yaa ngi nax sa bopp bu fekkente ne sax mënoo cee daal di intervenir directement am ñu ko mën comme ñoom Clédor Sène nga xam ne mën nañoo yeggale seen ab baat foo xam ne fu sori la bañ daal di ciy intervenir waaye yow mi di citoyen bi acte bi la war mooy nga jug daal di ciy dox ndax ñun Sénégal dañoo am benn habitude da gis koo xam ne dégg na ne ubbi nañ liste électorale yi mu war a dem bindu ji lay toog toog ba dernier jour ba muy daal di daw di buruxloo ak lijjanti kayit boo xam ne peut-être que waroon na koo mën a def bu yàgg-yàgg pourtant jamono jëm ko defee dafa nekk lu trop tard ba moytuwul ñu tëj liste yi mu nekk di kaas ak a fekk ne yoo moo jugul woon ci boppam teelul def li nga xam ni moo di devoir citoyen na ñu xam suñu ay droit xam suñu ay devoir droit la ci ñun ñu bokk ci liste électorale yooyu ñu tijji li nga xam ne moo di révision bi ñu daal di ciy dugg droit la ñoo ko moom kenn mënu ci lenn muy président muy ministre de l'intérieur muy kum mënti doon waaye devoir la nag sol say dàll dem dox ci dox boobu noonu nga xam ne moom nga ciy def pour dem daal di bindu ji du président ma Macky Sall du Félix Antoine Diome du kenn wala di Ousmane Sonko mooy jug di jàpp ci sab loxo di la fa yóbbu yow yaay jug am sa fulla ak sa fayda ak bëgg sam réew nekk un patriote nekk itam ku am civisme dem bindu ji ci liste électorale yooyu te xam ne ëllëg bu dee baat day am nga daal di koy war a joxe lenn képp mooy mën a tax daal di matal sab yéene mooy nga am carte électeur nga bokk ci liste électorale yi te nag lépp loo xam ne effort la yow nga war ko cee def def ko ci ba mu mat sëkk bul am benn hésitation boo xam ne da ko ciy daal di am Sénégal nag lenn kese moo tax mu métti au lieu ñuy jublu ci lu bëree bëri ci li nga xam ne moo ñu mën a jëmale kanam daf ci bëri ay ndaw ñoo xam ne actualité buzz ak lu amul benn njëriñ dong ci seenam réew moo leen yitteel dañuy intéressé wu ci la politique bu ñu nee politique nag ce n'est pas la politique politicienne comme ni ko gars yi di defee moo tax ñuy wax waaye politique boo ko déggee mooy sa doxalinum réew sa réew lan moo fay xew ñi ko yor naka la ñu koy doxalee yan stratégie la ñuy teg ak yan ndigg sërëx moom la ñuy tegal itam population bi ak képp koo xam ni da ngaa jug ngir daal di woote woo njëpp loole lépp nag faw ñu daal di koy xam ndax loolu mooy politique boo ko déggee rek mooy naka la ñuy gérer li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko daal di bokk loolu nag amul benn sénégalais boo xam ne ëppale na ci moroomam du président de la république du député bi du sénégalais lambda bi du kenn ñëpp ñoo ci bokk yam la loi loolu nag il faut ku nekk intéressé wu ci ci am ay xibaar yoo xam ne dalay permettre ngay am benn taxawaay ci sam réew waaye itam di am benn réflexion ak partition boo xam ni danga koy indi ci ni muy doxee a ji kenn dofatul ñëpp a yeewu ñëpp am ay information ci ni ñuy yoree am réew ñëpp a xam itam ni nga xam ne suñu ay nguur noonu la ñuy doxalee ci suñu wàllum kopparum réew ak koom-koom gi nga xam ni saa su nekk daf fii daal di am loolu nag jeunes yi ñoo ci war a gën a conscient am ci taxawaay bu am solo buñ ci dal di am ba tax na amul kenn koo xam ni amul carte électeur ku war a tergiverser ci mbir mi li dangaa war a teel a dem bindu ji bés buñ ko tijjee ñëpp xam nañ ne nag am na ay ndigg sërëx yu bëree bari yoo xam ni ñu ngi ko ciy jéem a tekk Clédor Sène àdduna ci dàmboj itam jot na ci addu ñooñu ñëpp lenn kese moo di seen ab yitte mooy yee sénégale yi ngeen ñu comprendre que ni lépp loo xam ni dafa ñeel préparation wu élection présidentielle yu atum 2024 ñëpp ci war a taxaw ñëpp ci war dox jéego yu am solo ngir buñ ci yeggee kenn ku ci nekk ci ñun daal di ciy gis ab njariñ njëriñ googu nag du xëy suba rek daal na jameet suñu kanam dina am ay jafe-jafe yoo xam ne dañ ko dund waaye ku fàttaliku atum 2011 2012 xam ne Sénégal nekkoon na ci ay jamono yoo xam ni mu ngi woon ci guute ak i jafe-jafe yu métti métti waaye tout le peuple sénégalais s'est uni pour se battre contre le président Abdoulaye Wade ci coté manifestation ci côté dem bindu ji ci liste yi mobilisation ak sensibilisation des jeunes ngir ñu comprendre que ni suñu réew mii bu ñu bëggee mu soppeeku ñun kese ñoo ci mën dara situation boobu la ñu tolluwaat actuellement dañoo nekk ak un président de la république qui s'appelle Macky Sall qui avait dit clairement à tous les Sénégalais que ne moom du bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 ndax kat moom ñaari mandat lañ ko mayoon muy 2012 2019 2019 2024. mu bind ko noir sur blanc ci ab livre bu ñuy woowee Sénégal au cœur boo xam ne moom moo ko càmbaral boppam bindal ko boppam bind ko itam ci suñu ab constitution mu nekk ni nul ne peut plus de deux mandats consécutifs au Sénégal kenn mënul def lu ëpp ñaari mandaa yu tegaloo fii ci suñu am réew loolu yëpp nag bu tegoo suñu kanam tey ñuy gis beneen taxawaay boo xam ne ñoom ñu ngi koy am waa PR bien vrai que moom président ki Sall nii oui nii non foofu rek la ko daal di téye dañuy am ñun suñu fullaak suñu fayda bàyyi ko mu def li ko neex waaye ñun nañ préparé wu psychologiquement préparé wu itam physiquement dem uti suñu ay carte électeur téye ko ngir xaar atum 2024 lu ci mënti am rek ñu xam naka lañuy ñuy daal di doxalee waaye laata loolu on va combattre le troisième mandat ñëpp xam nañ ne kenn du ko accepter fii ci réew mi ndax kat dafa nekk question d'honneur nekk question boo xam ni dafa sensible par rapport ak président Macky Sall institution bi nga xam ni moom lay incarner ñu bëgg nag institution boobu di le président de la République du Sénégal am benn cër boo xam ni daf koy delloo Sénégalais yi cër boobu mooy kaddu gëm yëkkati woon démb nar a changé tey bu amee rek dina tuutil li nga xam ni moo di mbubb président de la république du Sénégal jeunes yi nañu yeewu te jóg dem bindu ji ci liste yi bu ñu ko defee ëllëg duñ ko rëccu mukk ndax dina leen permettre ñu mën a bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tànn ndax kat ndaw képp moo mën a defar am réew puisque ñoo ko mën a defar nag à nou de choisir notre propre président de la république ndax mag ñi ñoom seen wàll wey na bien vrai que nag ñi ngi fi toog di ñu tette ngir wax ñu yoon mais pour ce faire il faudra que ñu am jeunesse bu consciente jeunesse bu active jeunesse boo xam ne day xam fi muy teg ab tànkam jeunesse boo xam ne itam day dévoué réewam daal di jëm kanam jeunesse boo xam ne du bàyyi mukk ay futilité di ko dal di berne jeunesse boo xam ne bu ñu tijjee list électorale yi day dem bindu ci am carte électeur am nekk ci liste yi ba mu leer naññ bu ko defee élection bu jotee bu tànn ki ko doy teg ko ca palais de la république ba toog di ko seetaan nag ndax dina liggéey ou pas di contrôler l'action du gouvernement mais aussi di participer au développement ci liggéey ñàkk jëriñu def ko comme ni ko maître Abdoulaye waxee woon il faut travailler encore travailler beaucoup travailler toujours travailler waaye itam ñu dolli ci la Kéba Mbaye waxoon le travail dans l'éthique liggéey bu ànd ak jub jubal liggéey bu ànd ak sell ak sellal liggéey boo xam ne dañ koy teg ci dëgg ngir nga mën a jëriñ saam réew jëriñ itam ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëwi ji ëllëg loolu moom mooy li nga xam ni moom la ñuy sàkku kenn ku ci nekk ci ñun na ci dox activé wu ci ci na mu waree waaye itam di conscientiser koo xam xam ne kii amul benn idée ci li nga xam ne moo ñeel enjeu yi nga xam ne ci lañ daal di nekk toogal waxtaan ak moom gindi ko xelal ko xamal ko bu ko defee moom bu paree dina tasaare boobu lépp message ndax kat ñun ñëpp ñooy ñi nga xam ne ëllëg ñun ñooy souffrir bu dëkk bi nekkee ci ay jafe-jafe kii nekk président de la république du ko yëg de ñun ñoo koy sentir ñun ñi toogoon naan suñu yoon nekku ci ñun ñooy xëy suba di dem ci marché yi di dem ci boutique yi di dem ca fa ñuy jaayee ak lépp loo xam ne koo soxla di am ay problème mu jënd pourquoi parce que ña nga xam ne ñoom lañ dénk suñu am réew suñu yoon nekkul ci ñoom ñoo ko salfaañee yàqate ko ba nga xam ni yow yaay subir conséquence bi waaye moom mi tëdd ci ay milliards am dara du ko ci yëg au contraire day lekk ay ceebu jënam yu fatt tara wàcc feebaree faju tëdd ci climatiseur di dawal oto yu rafet fekk ne yooyaay keccax baa ngi lay rey yooyu waxi nopp facture courant ak ndox di la xaar ay ordonnance yu dul jeex tege sa kaw taable aw njaboot di fande ngay xëy suba bëgg am dépense mu tëla fekk ne yow yaa taxawoon ni sama yoon nekku ci fekk ne sa yoon a ngi ci ndax conséquences yi kenn du ko subir yow képp yaa koy yëkk yow ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo taxawoon ni wàllum politique suñu yoon nekku ci ka nag say mbir mu koy def lu li ma la wax léegi rek ma ngay gàlla yàbbe nekk ci jàmm ak salaam bëggee ñëw saw dëkk def ab mobilisation jox la t-shirt teg ci junni ne la ñëwal yuuxul ma tàccul ma te wayal ma ci koppar gi ma dénk ma ciy def lu ma neex te mënoo ci dara nga jug yéeyaay dem ca pour benn bés boo xam ne ca ngay am ab junni ba pare yeneen i ay fan yu bëree bëri yu lay xaar yoo xam ne bés bu jot di nga ci wër ab junni waaye xaaju xaajaatam sax boo moytuwul doo ko ci daal di am AGT News